voilà asalaamaaleykum mbokki euh, suivre xibaar 24 TV euh, dañ fi jot léegi rek benn euh, nouvelle waaw benn plainte la boo xamante ni mi ngi jëm si Serigne Mamoun Mbacke chef religieux Darou Salaam Serigne Mamoun bii nag dafa jëloon position di fàttaliku si élection législative yi si benn émission xibaar 24 xamuñ nag ndax loolu moo waral plainte bi waaye moom si boppam ñu ngi ko jot par téléphone ngir mu leeral ñu lan moo xew est-ce que plainte boobu mi ngi koy dëggal plainte bi ñu ni lay nuyu yaa ngi en direct si xibaar maaleykum salaam euh, sëñ Babacar maa ngi lay fay waaye yaa ngi am jàmm bu baax di nuyu mbooleem mbokk ñu nga xam ne dañuy suivre Xibaar 24. Euh, plainte bi man tey ma xëyee la ma monsieur Mbacke woo ma ñëw ma ñëwee mu bind plainte bi jox ma ne ma cybercriminel Dakar ñoom ñoo la ne bu bu loon da war a wuyu ji li li rek kese yow lan nga jàpp ni moom nga def. ba ñu war la bindal plainte bu ni mel. xawma daara loo xam ne def naa ko. ah xanaa lenn bu fekkee def a lenn lay war a doon muy contre Macky Sall ndax ni mu yoree réew mi baaxut o ko combattre waxtu nekk di ci wax di ci dox te dama ko fas yéene continuer ba faaw ba keroog muy muy jóge ci mi. bu mhm. fekkee daal bu fekkee daal loolu ak tooñ la moom moom xam naa tooñ la te du ma ci jug tamit nag moom. Mhm. ndax réew mi ci laa bokk di citoyen loolu daal laa xam lu ma def. waaye xamu nag lu ma def. lundi le huit nga fas yéene wuy ji à neuf mbokk jot nañ si wala. Hmm. say kilifa euh, waa waaw bi may julli ji bi may ci suba yor yor la koy seen woo ma jaar fa. pare yàlla lool euh, avant fa fa laa nekk ba julli àjjuma dama tardé ñu fa jógee léegi maa ngi toogoon di añ moo tax waxaguma ci kenn xanaa daanaka xanaa yow laa ci njëkk a wax ñu daanaka. Hmm. waa waaye si fàttali. amoo loo def loo xamante ni dafa euh, salfaañe ak yoon wala nga tooñ kenn si soo sociaux yi parce que ñi la ko euh, euh, def plainte bi waa cybercriminalité la amoo loo fàttaliku tooñ boo def wala jalgati. fàttaliku ma dara lu ma def ci mbirum jalgati ah, te xaw te xaw ma ko te fàttaliku ma ko te xam naa ne tamit defuma ko ndax lépp lu may def ak lu may wax lu ne maa ngi ci bàyyi xel yoon. Hmm. ak ak ak ak yi nga xam ne ak ndoomu aadama yi ndax même bu dul yoon sax. war ngaa sàmmonte li ngay def nit ñi di ci teg bët ci sa ay ay teggin amu ah, ci war ma ak war ma defuma lu yoon daayee defuma lu lu lu war ma wut loolu wala teggin wut loolu ñun duñ ci dox duñ ci wax ñun hmm. lu ñuy wax bu ne suñuy wax mi ngi jëm ci réew nga xam ne ñoo ko bokk di ay citoyen bokk ci dem fu ne ci àdduna waaye nag Sénégal Sénégal gii ñu juddoo dëkk fi suñu yaakaar ànd ay laaxira dëkk bi mu Sëñ Tuubaa gënal ñu ko ñu gis ne ni ñuy yore réew réew réew mi jaadiwut jëkkul jaadiwut cycle politique baaxul économie bi baaxul ñu ngi yoon bi si bi tegul ci yoon lépp salfaañ moom état bi di rey nit ñi comme ku mel rey rey ay ay ay di di intérêt ay manifestation yooyu ci yooyu ci lañ dëkk di ci wax di ko di ko di ko di ko kaas ci mukk nag bu fekkee loolu tax ñu woon nañu yàgg a waaw ci ci ab daal mooy mooy mooy mooy mooy ci lañ nekk. kon sëñ sëñ Mamoune mën nañu jàpp ni xel mi dal la daal dina dem 9h incha allah le 8 euh, août foofee ci euh, direction bi la woo muy direction bi yor wàllu cybercriminalité. waaw incha allah bu leen la jàmm dinaa dem Dakar wuy ji loolu moom am naa ci xel mu dal bu baax a baax dinaa dem ndax dinaa dem wuy ji. jërëjëf sëñ Mamoune. jërëjëf sëñ Babacar am xewal. ok su fekkee que dëkk faneen ca frontière ba day dox fukki kilomètre. soog a faju wala soog am ndox mu naan kooku moo gën a yeyoo forage wala hôpital ki nga xam ne bu dëkk daa dëkk Touba ci bu génnee dox 30 mètres wala wala 100 mètres egg ci hôpital bi wala wala wala wala mën a am ndox ca loolu mooy ci loolu nag mooy li nga xam ne képp kuy xool intérêt général foofu nga war a nekk léegi nag euh, di dox ci loo xam ne intérêt dafa jafe rawatina ci nguur Macky Sall gi ndax corruption bi dafa bari lool. rawatina pouvoir bii fi nekk nga xam ne corruption rek la gëm te jamono yi ngay corrompre nit ñi fekk na jàngalekat yi ñu ngi garaw ñu wàll ñi ñuy faj ñu ngi geraw étudiants yi ñu ngi geraw secteur yi yëpp ñu ngi garaw ba étudiants yi di garaw bal ñuy dee kenn mujjut fenn jamono yooyu nag nga war a jël alal askan wi delloowaat ko ci askan wi déedéet ni nga koy def mooy da koy téye ba el nga leen xiifal ba amuñu lu lekk. bu ëllëg soo ñëwee ngay krok krok boo nit ñi waaye damaa jàpp ne foofu sénégalais ñoom ñooy seet ndax yaakaar naa bi Macky falaw léegi li ñu fi def ci audit yoo xam ne Cour des comptes koy def wala euh, inspection inspection générale d'État moo koy def mu ñoo xam ne eh, ci état lañu nekk ne ci biir palais bi génn ay rapport leer nañ ñi ñuy jàpp ay nit ci 29 milliards Prodac jàpp nit ay kilos yu ñebbe 4 mille et quelques ñooñu ñëpp mu yokkal leen seen ndombay tànk kon ñoom ay milliards lañu sàcc kon bu ñu wàccaat ci askan wi leen jox fukki junni ak juróomi junni kon ñoom ñoom ñoo war a xool ba xam ñoom loolu dañ ko ñu koy nangom déet dañu nag dañu nag pukki bu yabee ponkal ca doxin wala ca damay ñëw tuuti ci gën a ñëwaat ci gouvernement Macky euh, politique Macky Sall bu bon dañ fàttali ko at ci ginnaaw ne jël na pétrole réew mépp jox ko rakkam mu am ci bénéfice su 6 000 6 000 milliards loolu lu fu mu mën a yóbbu askan wi benn son benn journaliste def ci rapportage BBC journaliste boo xam ne bi mu ko génnee bu defee rapportage ba pare war a génn Sénégal état Sénégal bëggoon na ko ci fay un milliard pour loolu bañu génn mais xoolal googu ko ñoom corruption rek lañ gëm ñu mën yi may waxee yow am na cent 150 ministres conseil yoo xam ne sax dëkkuñu Sénégal Macky Sall bëgg ay xaritam lañ yéene leen xaalis mu defal ay salaire 150 personnes ministre conseil ku nekk nekk looy fayu 2 millions et quelques lañ fay 3 millions loolu ñaata sage-femme d'État la mën a fay ñaata jàngalekat la mën a fay foo dem ci réew mi da ngay na nit ñi yoo xam ne fa ñuy wasinee dañuy faatu ngir amuñu sage-femme bu leen assisté te ñaara ñaata sage-femme d'État ñoo fi am diplôme am yoo xam liggéeyuñ kon loolu ministre conseil yooyu mu jël ñu ne ci àll bi taxawàllu loolu ñaata sage-femme d'État nga ci mën a jël jëlaatuñ jabar yi ambassadeurs yi wutal leen salaire ngir lan dañ ne Marème Faye ci amee xarit rek leen wutal salaire ñaata 500000 benn 500000 bu ne mënoo cee fay ñaari jàngalkat wala ñaari sa femme d'état hmm? kon nga xool ko xam ne politique am dara baaxu ci ñuy wax ci wàllu infrastructure mboolem tëli boo ne ma defar na ko ne ma vingt milliards wala forage lépp lu loo xam ne 20 milliards la ko la ko defaree mu def ko surfacturation 60 milliards. triple ko du ko diwul sax da koy triple mais kon yooyu projet amul njëriñ rawatina doon projet yoo xam ne banque mondiale doon yoo xam ne ëllëg suñuy doom ak suñuy sët ñoo koy fayaat mais kon loolu ah, lan moo teewoon nga def ko ci foo xam ne day génn dara askan wi di ci gañe dara waaye yow bi nga jëlee réew mi léegi mboolem lu fi nekk ci ay sañse ay ay sañse lépp tubaab nga ko jox naar mboolem tamit li ngay defar daanaka du juraat du juraat dara populari ñi nga xam ne ñoo ñoo doon ñoo ñoo doon ñàkk dañu fulu ñu ñàkkoon seen liggéey gën a yokk ba fi mu toll ba daanaka réew mi ñëpp ndóol ceeb bi seeku saako ceeb bi doon jar 12000 13000 dem ba 16000 17000 mais kooku lan mooy bilaam kooku bu fekkoon pour man sénégalais am nañ nañu la sax Macky Sall wërta jàkkaaroog sénégalais yi wala ñu ànd ak moom génn naa dañuy wax ak sénégalais yi pour man foofu sax dañoo yeb yaa ngi dégg su ko defee sénégalais yi nag ñoom ñooy xool pare xam liñ bëgg. waaye man sama gëm-gëm sax élection yi ñu jëm Macky Sall gañ na ko noppi pour man ndax li ma gis mooy li ñu ne gumba bu nee la nañ sànnante daa jóg ci xeer Macky Sall ñaari élection la fi gañeegoon muy 2012 présidentielle ak élection législative 2012 sel ñaar yi la fi gañee à yooyu yëpp da ko sàcc ndax yeneen yëpp moom mooy defar fiiseem defar ay carte yi moo ngeeg fiise bi organiser ay élection ci date mu ko bëgg kenn du gis fichier bi ñu dem élection mu gagné ko Macky Sall mais xam na ne minorité la naka lay organiser ay jàpp bis kenn gisul fichier bi nga xam ne ay nit ñu dee sax ñu ngi ci ñoo xam ne dañuy woteel nga jàpp na ko ci gagné xeex bi ma nga waroon a commencé ci xeex ba ba fiise bi fi nekk ñu jëlee ko fii def ci fichier bu baax def fichier boo xam ne ñëpp koy càmbarandoo parrainage bi ñu jëlee ko fi waaye boo xam ne dafa defar fichier am fichier boo xam ne mi ngi ko programmé ci huit candidats. ñeneen ñi mu génn leen na leen mun leen bokk ngir fii si mu def biir candidat ñoo ci war a nekk organiser élection bi ni nga ko bëggee nga ne di ko ci gagné déedéet boo gisee mu sonn ci tubaa tubaa day def lu mu sàcc-sàcc taw bi fii woote day bari ba ëpp contre ko mun ko sàcc waaye bu fi fekkee dafa def assurance anniversaire créé na ay bureau fictif ba noppi fenn fu ci nekk xam na bu fa bu fa 500 personnes dee woote xam na ne 400 yi dañ ko contre créé na ñetti bureau fictif dolli ko ci yoo xam ne bu fa ñuy amee 400 moom mu am fa 100 créé na yeneen 4 5 bureaux fictifs yoo dina fa am 600 yoo xam ne bu ci nekk 100 mu jàll kon bu ñu yaakaaree gañ ko ci élection moom wax ju yàqu la xanaa kay ñu waajal 2024 fas yéene baat troisième mandat moom du ko ñëwee gën a jéggi ba léegi mi ngi koy bëgg waaye ñi mu ko wax ci ñu ko koy waxal amul problème waaye daal man dama gëm ne fi may commencé mooy sëriñ si nekk Touba di jàppale Macky Sall bu leen. bëgg a jàppal Macky taxal taxa jaral ñuy jël sëñ ku tal ne sëñ Muntaxa nekkal fi sëñ Tuubaa ñu koy foyee di ko wutal fu muy far sëñ taxa furut fenn ca bu demoon bay far du far ak Macky ndax kenn wérante wu ne Macky Sall bi mu faloo 2012 au début départ am mu nekkoon xeex homme d'affaires yi murid yi fi nekkoon directement la ko doon wane nëbbu ko woon ak xeex kilifa diine yi faagaagal na fi ay ay homme d'affaires murid yu bari lu lu luñ tudd Tuubaa nangam rek mu faagagal leen danaa gisatu leen fii ñi am na ci homme d'affaires boo xam ne bi yàggul la faatu bi mu ko bëggee tëj sëñ Sidi Muxtaar ne ko ñaan naa la ci karib nga bañ naa ñaan naa la ci diw nga euh, nga bañ waaye kii moom bu ko laal ndax ñaari kilifa ñëw nañu fi tuug ñaari kilifa yi mag ba nga xoolee mënu ko tëj daa tëj ay kontam yaa ngi dégg kon kooku ko xam ne directement li ne woon objectif am mooy jàmbarlak yoonu murid parce que yooyu yoonu murid doon ay pexe kenn waxatu ko ak kilifa diine yi mu nangu seen i passeport diplomate ñëpp yaa ngi dégg yenn sëriñ si mu nangu ko ay oto yoo xam ne sax jëlut sax tax 20 millions mais kon kooku nu ñëwal bi di ko naan sëñ bi moom la àndal mais sëñ bi amulul nañ gëm seen intérêt personnel ànd ak moom waaye buñ ci tuumaal sëñ bi fi nga xam ne falaay falaay tëjee nag mooy ma ñëw ci fii nga xam ne fi laay yëkkati samay kàddu muy Daaru Salaam damaa gëm ne réew mépp ñëpp mere Macky Sall ñëpp contre waaye nag ñun waa Daaru ñoo ci war a raw ndax ñun dafa am lu ñu beral ndax moom li nga xamal ne mënut a yorum réew amul dënn bu yaatu ko yorum réew 2012 ci deuxième tour dafa bëggoon a ñëw fii Darou Salaam genn kilifa gu mu fi contacté kilifa gàntal ko ndax ànd ak Ablaye Wade loolee mer moom la jàpp ba nëgg ni Darou Salaam benn pat lamp képp Macky Sall fa rek la yokk gu suwal tëli ngir lal ngir loolu benn yoon la fi ñëw ah, am njaal ci ko ñu ngi ñaan yàlla mu fi ñëw ndax fu mu dem am njaal ko fi yóbbu kon kooku ñun bu ko réew mépp meree ñun waa Darou Salaam ñoo ko war a gën a meree loolu maa koy wax njabootu maam Cheikh fu ñu mën ne ci réew mi ma leen koy wax te Daaru Salaam kat waxuma damaa jëlee li mu tekk ci li Sëñ Tuubaa def ndax Sëñ Tuubaa moo lu njëkk sëñ si xasida gu ubbi ma nga fa waaye dama lay wax ci mboolem homme d'affaires yi fi nekk yu murid yi bu njëyee 100 60 yi waa Daaru Salaam lañ ñoo xam ne économie Sénégal ñoo ko yor mën la ci limal lu bari ki ñuy wax Ablaye Dia Ahmed Amary Fatou mu yàggut bu NMA euh, waa Sahel Gaz mën la ciy limal juróom jeex kon ñoom seeni taalibe sax ñoo bokk ñoo dañoo siy ci économie Sénégal kon nag may wax ko Sénégalais yëpp rawatina fii ci Touba nag li ma ci dolli mooy dañoo programmé ak fii ci biir réew mi waaye rawatina Touba lañ ko gën a programmé mooy bépp bureau de vote boo xam ne gis nañ bu ñu demee ba takkusaan gis na dañu faa nar a gañee seen ñu xool Touba feebul na ñu yàq bureau boobu loolu nag na ko Sénégalais yëpp programmé rawatina waa Touba ku woote pare taxaw si bureau de vote ndax nag nag réew mi metti na nag ca nag Sénégalais yi sonn nañ ca nag xeex bi nag kenn ku nekk da ngaa war a gëm ne sa combat waaw damaa jëm gëm nag ñun ñii nga xam ne nag suñuy maam dañ fay nekkoon nekkal fi askan wi di leen dimbali leen yërëm ñun ñii ñoo war a doon loolu te bañ a te bañ doon koo xam dañuy gëm intérêt personnel man daal foofu laa nekk ci fi laay fi laay a nekk loolu ñëpp semaine bii nga xam ne nag moo des ci élection yi man damaa fas yéene mu doon semaine bu saf sàpp ci man boo xam ne saa bu ma xëyee rek ci communication ci wàcc ci terrain bi fas yéene Macky daal benn carte bu wax leen kan mooy Macky Sall ak ku yàqam ak leeral ne leen taalibe yi mbokk yi naan sëñ bi Macky Sall fal du dëgg semaine bi moom ci laa ko fas yéene def tey nag dama ko commencé tey rek jërëjëf jëf maa ngi ñaan yàlla nañu suñu borom bokk defal jàmm jërëjëf jëf